ayca salaamaaleykum mbokk Sénégal mbokk internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen niroo rek ah, di leen ziar di am mbégte ak contentement di ànd ak yéen saa programme Lutte TV ah tey ñu ngi toog ak koo xamante ni te yaakaar naa ne nee naa ko coow li bëri na lool waaye nag ah, kenn dootu ko présenté si lambo muy Cheikh Tidiane Niang ñi naan ko Alpha ñi naan américain tur yi nag dafa bari waaye avant dara rek ah, dañ koy dalal nuyu ko bàyyi ko mu nuyu ñu koy saa ñu koy seetaan si Lutte TV ginnaaw bu ñu ko masawoo ci blessure bi nga xamante ni rek moom la am ba. dégg ngeen ne combat mënatul am Cheikh maa ngi lay ziar. waaw maa lay fay doom yaay di la bëgg di la ziar bu baax a baax. waaw di nuyoo ñëpp di nuyu monde entier waaw di nuyu kilifa aada ak kilifa cosaan yi yëpp euh, kilifa diine yi yëpp waaw bàyyi ñu kenn daal di nuyu monde entier nuyu waa ñoojoor nuyu ñu ma fi nekkal ñoom Babou ñoom Lamine ñoom Moussa ñoom Matar ñëpp bàyyi ma kenn quoi waaw di nuyu téléspectateur di nuyu waa Lutte TV bu baax a baax di lay nuyu yow mii bu baax a baax waaw. di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp. bàyyi ma kenn bàyyi ma moo monde entier. waaw di nuyu sama fang si yëpp ak sama soppee. waaw waaw. parce que tey si suba daal lañ gis si journal bi ñu ne Cheikh dafa blessé ba mënatul bëre euh, am na repos médical ba yan leeral nga mën a andi ci loolu. waaw noonu demee am na médical dem neen CNG dem fu ñu war a dem tamit affaire yooyu ñëw ñu xool ñu ñu blessé waaw ñu ñëw tamit déposé suñu médical muy loolu quoi waa CNG gis neen ko. waaw ndax ñun moom duñ ñaanal suñ boobu accident buñ sañoon tey ñu bëre ndax làmb mooy suñuy métier làmb lañ yaakaar lépp lu ñu am ci làmb lañ ko jëlee. Mhm. lépp loo am si làmb lañ ko jëlee mais seex lan la parce que sa blessure yi nga am yëpp dafa flagrant parce que sa blessure bu njëkk bi Dour Sané moo la gaañ ñëpp gis vidéo yi métit lu ko mooy loolu sa blessure bu mujj ba sànq rek revue de presse Lamine mu ngi koy wax loolu tamit lu flagrant la maanaam ñëpp a gis ne seex dafa blessé lu xew. waaw dara xewul loolu dañ koy sante yàlla rek xam ne yàlla moo ñu teg loolu quoi ndax munoon munoon na ko teg keneen mais loolu bu ñëwee ñun dañ koy sante yàlla bu baax baax a baax waaw di leen wax ne ñi ma blessé ay ñoom duudu nekkul seen coobara waaw ndax man mii mun naa leen def loolu ñoom Toubacouta muy loolu kooku sax blessé wu ma man maa blessé sam boobu ndax dama maa si def ndax fu ñu tolloon foofu suuf bi bëriwul waaw mais après moom ñëw na ba si oto bi ma nekkoon di may naan ba blessé yow marché affaire yoon moom Toubacouta waaw de waaw bu baax a baax kay waaw def acte bu rafet di koy nuyu bu baax a baax. Doudou tam dégg la blessé euh, mënu la woon woo parce daal yéen ñaar euh, du ma woon affaire yooyu too quoi mais loo mën a andi leeral ci loolu noonu parce que nit ñi tamit bëgg ah, la man defu ma ko bu doon man maa def moom te sekuñ dara man dinaa ko woo marché wu ko quoi. mais ku nekk ak xelam quoi noonu la ko demee. Euh, balaame wu ma ko waa maa ngi koy nuyu au passage di koy ñaanal yàlla defal ko jàmm waaw ndax ñun ñoo bokk arbitre ñu ñëw mun a defalante suñ biir lu metti ñu ñoo mun a defalante suñ biir lu rafet loolu rek bu dul ñoom du ma am xaalis te bu dul man tamit duñu am xaalis waaw ñaar ñiy liggéey ñoo mën a waaw ñoo mën a defante lu ne quoi waaw nay rafet rek waaw aduna yaagul waaw mais sa combat bi koo laaj seex mu ne mën na bëre am na jom am na fulla ba tey ay mbër yu mag sax ñu toog di seedeel seex fullaam ak faydaam ak jomam ba tax moo ko moo ko andi fi si fii tey waaye yaakaar naa ne blessure bi bi nga bi nga blessé am na yu bëri si dégg. waaw dégg naa si lu bëri ku mel ne promoteur bi eh, seetaan naa seetaan naa dégg naa lu mu wax mais muy loolu quoi noonu la fa demee ñu ngi koy baal ñu ngi koy naan ñuy tuub daal. ndax mun ñun mun ñoo nekk si contrat ba pare. muy loolu defee ko noonu quoi mais lu tax ñu def ko ñun suñu làmb day metti trop ndax tey yow promoteur bi da lay jox ay billets après lu mu lay fay billet sax moo koy ëpp si xaalis te bu dul loolu suñu mbokk yi dañuy joge ba ñoojoor ay trois cent mille biis bi aller retour te buñ ñëwee tamit dañuy jàppaat si dañuy añ ñooñu loolu dafa metti trop waxatuma waa parcelle 1 ba 26 foofu tamit da nga siy teg añ gars yi muy loolu jox leen billet yi gratuit te waa ñoojoor ñoom duñ def lool dañ siy jàpp bu baax a baax loolu dafa metti te ñun suñ jàppale yeggagul foofu ne ñun tam dinañ xam ne nag foofu lañ toll ndax ay mbor yu ndaw lañ waaw il faut ñu ñoo mun a lancer suñ boobu kon ñun bu ñu amee combat loolu suñ mbégte la suñ mbégte la mais pas ñu koy yàq wala muy loolu ñun mosuñoo yàq làmb. du question sabotage. du question barki Seydina Mohamed du question sabotage. te balaa moo xam ne du question sabotage mais maay dégg muy wax ne combat bi bëggatu ko xawma la nag la mais man waa CNG lépp luñ ma wasi loolu rek muy loolu man noonu laa koy defee quoi ndax ñoo ñooy sama kilifa. ni ma ko waxee sànq revue de presse rek nee naa ne les responsabilités sont partagées parce que tey CNG peut-être ñoom comme que combat bi deux semaines si desoon est-ce que ñoom waroon nañ la bàyyi ngay bëri wala loolu maanaam bokkul ci contrat mm, man moom man moom man man man man man man warumaa dem bëri mais man li ma la expliquer. loolu moo tax quoi. bari jàppale bi amul te yow si si làmb nga yaakaar pour mën a defal sa bopp. billaay walaay tallaay te toog naa trois mois bëreewu ma. ndax gaañu looloo tax man ma ñëw muy muy loolu pour bugg te boo gisee tamit suñ euh, père euh, père Diakhoum lu mu wax na loo xam ne muy loolu waru ko wax quoi ba lu dara ndax tey ñu ñoo ko mën a def lu ko metti moo ñu war moo ñu mun a def lu ñu metti lu ñu metti ndax ñu ndax. voilà dafa muñ amal suñu diggante ndax ñun. ñun ñoo bokk liggéey gi mm-hmm. waaw ndax tey gis nga mbër daan na nit mbër daan na nit te joxuñ ko jël mbër daanu na ñu jox ko jël te daanul te loolu yëpp suñ biir la mën a amante mais lool bu ñëwee yow dañ dañ ciy santé yàlla man du ma mu amul benn sëriñ bu sañ a taxaw ne see ay combat bi bu si dem ay danga ay dangay daanu bari barki Seydina Mohamed mosul am billaahi wallahi tallaahi. kon sax gëm sax gëm man gaw man gaw ma loolu man gaw ma loolu. gaw ma lool dégg naa muy naan ay poids yoo xam ne seet bu si duggee ay seet du si gagné ay lii man lépp lu ma am rek fu ma ko gañee ma xam ne yàlla la fu ma ko gañoon ma xam ne yàlla la ndax man dara feesul samay bët. amul ko dañoo yàgg déggoo ma ñun dañoo yàgg dund si ndool si si loolu la ñuy dund ñu gis koo xam ne muy lool am na loo xam ne muy lool ba loolu di fees suñu bët wala muy loolu ñun dañoo bëgg booy muy lool booy tob sama ginnaaw waa sama dëkk daa am lu ma fa bëgg a def muy loolu noonu loolu sama njàmbaar ak sama fulla ak fayda moo ko mën a may mais bu ma nit buy wax loo xam ne muy loolu te reful lool loolu daf may yokk jom war waa xam fu ma gën a taxaw war a def fulla ak fayda reyante samp ay projet yoo xam ne muy loolu ndax mun ñoom Modou Lo ñoom Balla fu ñu yéeg ñoom Bombardier yëpp ñoom Eumeu seen fu ñu yéeg mën naa faa yéeg lu am man naa kaa am te fu ma ko amee ñaanu ma yàlla beew boole ko ak waa samay mbokk ñëpp waa ñoojoor waa ndun ñëpp ay projet yoo xam ne muy lool ba parcelle 1 ndax ñëpp may jàppale man waaw kon yow daal loo am daal bëgg nga koo bokk ak say mbokk. bu baax a baax ñu dul samay mbokk sax incha allah. waaw léegi instant yi nii yaa ngi yaa ngi faju maa ngi faju maa faju blessure bi fan la si genou bi la wala si. genou bi la kañ am na benn chinois tamit boo xam ne euh, euh, bu amee bu ñëwee day tom day tegle deux jours du ñëw après beneen jour bi mu ñëwaat quoi. moo lay maase quoi. waaw may faj. mu nekk tamit en ah, yaakaar naa ni ñu koy waxee rek loo xamante ni tey du mënta ñàkk si sport parce que accident moom ku ne xam ne ne dafa naturel te lii dafa flagrant parce que bi mënul a dem ah, parce que ñoo a sonn parce que seen jàppale tollu te bu ñu amee combat dañuy reyante dañuy ah, euh, li ngay li ngay li ngay waxaat rek ñi nga xamante ni mooy ñi ñi ñi bëgg seex war a jàppale seex war a dooleel seex parce que seex mënalul boppam dara waaw a neen gën a jàpp bu baax a baax rek ndax ñun moom mooy lool ñun daa am ñoo xam ne jiko boo xam ne moom lañ yoon ñun ay séeréer lañ ay dara séeréer ñoo daw si ñun am na loo xam ne tey muy loolu man tey fu ma neexoon chaque jour mën naa dem si Birane sekk foofu samay samay om di wax ko lu ne fii la xar yi jaar fii la xar yi jaar mais daa am loo xam ne ñun muy loolu comme ni ma la ko waxee ñun dañoo yàgg di dund te muy loolu gisuñu dara waaw te loolu loolu njàmbaarte boobu ak dignité boobu moom la ñuy demee te moom la ñuy demee ba ba laa yow mi diin. mais tamit ni nga ko waxee sa waay la kon te moom tamit donte xam naa ne mu ngi siy jàpp sax mais kon na si gën a jàpp ko. waaw na si gën a jàpp mais moom projet dafa bëri man du ko balaame am na loo xam ne tamit nit nit rek la mën a doon ndax man à tout moment damay nit ku ma gis dama koy xoolee sama boobu. am na loo xam ne tey du ma ko xalaatal nit ki lii lu ñaaw la wala kii lii la war a def wala laa kii la war a def am na loo xam ne muy loolu quoi mais suñ père Jackson ñu ngi koy jégalu bu baax baax di koy wax ne muy loolu mosu ñoo am ak moom contrat ba ba ñu fausé waaw te léegi bu ñu ñëwee ñu fausé rek am na loo xam ne muy loolu. dañ koy ndogalu yàlla la quoi mais baax suñ coobare ñun duñ ñaanal suñ bopp accident duñ ñaanal suñ bopp loo xam ne nekkul. billaahi wallaahi tallaahi. barki Seydina Mohamed fu ma blessé woon man damay dem bërë ji billaahi wallaahi tallaahi. kon yow ba kon yow ba léegi bëgg nga combat ba léegi waaw bu dee moom bëgg na ko moom bëgg naa woon xam nga lu tax combat bi man mënu maa jóge si ndongoloo dem si Kaw Cissé waa am na loo xam ne sax muy loolu comme li ma ko wax ñun du ñu joxe bopp di rocci làmmiñ ñoo duñ ko def am na loo xam ne muy loolu bu ñëwee ñun sax dañ koy assiteel mais man waa ñoo jox duñ jógee fee man may dem di soox di bërë ji ñu may daan loolu xalaatuma ko ci àdduna jamais de la vie doomu aadama bu moo ko mën a defal waaw man damay bëri en bonne santé waaw kon yaakaar naa ne loolu leer na Cheikh Tidiane Niang ah euh, ni ñu koy waxee rek euh, euh, blessure bi c'est confirmé par par par le CNG may nañ ko repos kon Père Diaks ah comme ni mu ko waxee rek nee na mu ngi lay jégalu di lay baalu ak yaakaar naa loolu moom ak ak moo ànd kon xëy na moom ni mooy bësaat xolam rek muñ programme waat leen beneen dal ah waaw ñun moom ñuy taw di déglu comme ni ma la ko waxee rek comme waa CNG moom nee na dem na foofu man Père yoruma numéro am yorul sama numéro maa moom mosu ñoo déggante. kon Diaks Diaks mosu ñoo moom may day wax ay ñoom ay ñoom As ak ñoom Matar ñu après ñooñu ñoo may jot mais man yoruma numéro mosuma déggante. ñaar mosoo leen déggante. barki Seydina Muhammad mosuma déggante moom. kon moom kay. mosuma dem ba gàllayam fekk ma koy joxe ay xaalisu biyeem mhm, benn yoon. kon nag comme ni mu ko waxee rek kon moom ak lu mën a xew kon yaakaar na mu ngi wax ak moom ñi muy ne As mu ngi wax ñoom Matar Jammeh kon yaakaar na daal bu ngeen waxtaanee di ngeen jubboo kon nag na fexe ngeen gisee toog waxtaan parce que pour man moo gën a ëpp solo trouver solution daal moo gën a fi mu moo gën a rafet sax moo gën a rafet noonu la comme ñu ñoo bokk liggéey gi. waaw budul ñoom duñ dem te budul ñun tamit jox gaay waaw waaw man saa yi gañ pare naa si quoi pare naa si sant yàlla di nuyu ñëpp di baalu ak bu baax a baax sama supporters yi ak ñi nga xam ne muy la sama soppi lañ di nuyu ñi nga xam ne dañ may ñaanal ma xam leen ma ñàkk leen xam di nuyu waa sama mbokk yi nekk France tamit jàpp neen ci combat bi bu baax a baax a baax muy lool gars yi jàpp neen si da am na ñoo xam ne jàpp am na ñoo xam ne jàpp neen si bu war a cotiser def war a na sa côté parce que tamit wàcc sa fajar sa ba pare war a waajalaat dina métti ah, waa dina métti mais dañ koy sant yàlla xam ne yàlla moo ñu teg ndogal googu rek loolu rek mais du leneen quoi waaw comme ni ma ko waxee billaahi ñun dañoo yàgg dund loo xam ne muy loolu billaahi walaahi talaahi maa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 votre quincaillerie de référence.